mën nanoo tàmbalee ci wax ne lañu aaye woon ci ñu régler rek marchandise ne nangam la toll joxe ko muy capital ndax buñ àggee ci bénéfice ba borom capital am nangam ka ci doon liggéey am nangam ñu ne woon aaye nañ ko buñ ko defee nag luy àtte ba luy àtte ba mooy dañ ko boole ci yi nga xam ne dañuy bañ a seet nañ waxante woon ñoom ñaar te seet la nga xam ne moo jaadu foofu moom lañ ëpp defante ñu àtte leen ca noona te bañ leen àtte ci nañu jubante woon mel ne bu fekkee dañoo juboo woon ci seetu bénéfice ba ci digg ba ñu gis nag ne lañ aadawoo defante foofa mooy kay liggéey ca capital ba ceer ba lay am waaye du am genn wàll ga kon dañuy àtte jox ko ceer ba bañ koo jox genn wàll ga ñu waxante woon boo bay ci xam man ak jaay wàllu ka nga xamee ne ubbutal yee nattoof na ko di faqarin ci ñàkk bu ñu nee ka waqafle mbaa nga ne ka xobusle lu mu sart ni moom laa bëgg rek sama yëf yi doxe ko dañ ko caa war a fekk dañu wax ne sart ya ñett lay doon benn mu sart loo xam ne dañu ko sib mbaa lu araam mbaa loo xam ne sañes na ko sart muy lu dagan lépp lu mu sart te muy lu dagan moom dees koy wéyal na mu ko sarte lu mu sart nag muy lu ñu sib bu fekkee jot nañ koo def ngir la mu ko sartoon dañ koy bàyyi mu wéy waaye bu fekkee jot ñu ko woon a def kon buñ ko def bu dee lu araam nag moom bu ñu ko xalaata def buñ ko defee itam te dindi nga weesut nañu ko daldi dindi mel ne njariñ la bu ko dee jëmale ci ñoo xam ne ñee dañ di ay góor ñee di ay jigéen te wax ne nañ ci ëppalante na góor ña ñaar ca la jigéen ña mbaa mu ne sax ne jigéen ña ñaar cële góor ña itam lam ci wax rek moo ci wéy bu ne nañ ci yemoon te itam ñu yemoon te ca ba tey bu waxul dara dañ leen di yemale ca séddale ba ba tey catégorie ga féete suuf bu ne nañ yemoon teeg catégorie ga féete kaw mel ni mu ne sët yi nañ yemoon teeg bàyyi ya ko it ñu daldi wéyal loola ba tey bu nee koo xam ne yàllaa ko nattoo ak ñàkk mu dem ba mënta wéyati damay sart ne wàllam sañ na koo jaay ba tey dañ ne woon xobusle mbaa waqafle kenn du ko jaay waaye nag ndegam moo ko sartoon ne ku dem ba ak ñàkk dal ko mën naa jaay wàllam ba tey kooko dana sañ a jaay wàllam waxay su jaa fu mu fi dikkee lafzul waladi baatub alwalad mutlaxan mbir mu luñ joyal tënkuñu ko ci dara fa waladu zukkoori kon doomi doomi góor yi rekk daaxilun mooy aji dugg fa xadd te mu doy laa waladul inaasi du caagéenu doom ji bàyyi ko ci doom yu jigéen ya su ne lii day daa koy jëmale ci ku ma jur kon kum jur rek muy góor muy jigéen moom ñëppay dugg waaye nag ñoom jur ci ndiggam buñ jàllee ba mu def sët ya moom sët bàyyi ko ci doom ju góor rek mooy dugg waaye sët bàyyi ko ci doom bu jigéen moom du ca bokk lu may nag dafa ràññeeloon ne sama doom diw muy góor ak sama doom diw muy jigéen teg ca nag ak seeni doom su boobaa kon sëtam ya bàyyi ko ci doom ju góoram joojee ak ya bàyyi ko ci doom bu jigéenam boobee ñépp ñooy bokk dugg waaye nag su fekkee dana rek waqaftu wala xabastu xalaa waladi wala mu ne xalaa awlaadi su boobaa moom bu dee ci ay doomam ay góor ak ay jigéen ñëpp ay dugg waaye nag bu njàllee ci sët ya moom sët ya bàyyikoo ci doom ju góor rek ak ña ca sëtaatoo ñooñu rek kay dugg waaye moo tax mu ne illaa illaa xaysuma bintun ndare foofi xam ne doom bu jigéen li sul bi ñeel ndigg zikruhaa tuddam nga taqaddama jiitu woon na niki mu ne woon lii daa ko waqafle ci sama doom Modou Diop muy góor ak sama doom bu jigéen Zeynabu Diop ak seeni doom su boobaa kon sët bu bàyyikoo ci Modou Diop ak ba bàyyikoo ci Zeynabu Diop ñoom ñëpp ñooy dugg waaye nag bu fekkoon ne àggutoon ci tudd Zeynabu Diop dana rek lii daa ko waqafle ci koo xam ne maa ko jur muy saa doom kon ay doomam moom góor ak jigéen ñëppay dugg waaye sët ya moom sët ya soqi koo ci doom bu góor rek mooy dugg wa mitluhu am kemam la fii daa ci lii baniya bu ne baniya samay doom wal xaq bi ak bu tuddee baatub al xaq bi ñuy firee ay sët ba tey bu ne lii daa ko waqafle mbaa daa ko xubusle ci samay doom yu góor léegi mu ne xabastu xalaa baniya wala xalaa abnaa yi wala mu ne xabastu xalaa xaqi bii wala xalaa anqa bii ba ci xalaa nasli yépp ñooye moo doom ju mu jur dana ca dugg bokk ca muy góor muy jigéen waaye nag buñ demee ca sët ya sët ya bàyyi ko ci doom bu góor rek ñooy dugg waaye sët bàyyi ko ci doom bu jigéen du dugg lu may nag nañ aadoo waxe foofa ku ko masaa wax si sët yëppay dugg ba ci ya bàyyikoo ci doom bu jigéen ndax wàllu ji nu toll moom dañ cee seet nañ aadawoo waxante foofu rek wa shaamilun aju daj la duriyat yi baatub duriyat yi fayan saxibu damuy diriku ci kaw ñëpp am na yax bi bind fa mun saxibun te aji diriku la wa ataf ci shaamilun bu nee nag waqaftu xalaa durriyat yi durriya dañ koy firee ay sët rek waaye buñ ko waxee day yóbbaale ay doom ak ay sët maanaam ñu soqi ko ca moom rek su boobaa nag moom dana yóbbaale sax sët yi bàyyikoo ci doomam bu jigéenam donte ràññeelu ko du aada foofa it du tee na sët yi bàyyikoo ci doom bu góor di duggee noonu la sët bàyyikoo ci doom bu jigéen di duggee wal xawsu làq ga te mooy jël ga chartu sixati taxbiisi mooy sartub wérug xubusle ga qabla xusuuli mawtin ci njëkk amuk faatu aw tafliisin wala sisir li jaaisil qabdi ñeel aju dagan ak ngëpp waqafle mbaa xubusle kañ ko féetale mbaa ñañ ko féetale balaa baax dañuy taxaw temm ci jël ko féetewoo balaa gàllankoor am waaye bu fekkee ne yéex nañ koo jël ba gàllankoor am te gàllankoor mooy kooka faatu mbaa ñu koy sisir mbaa ñu yéex ko jël ba tawat dalu ko woon waaye tawat dal na ko te tawat ja moo wéy ak moom banam faatoo kon duñ ko mën a jëlati jël ga wéy na day daal doon rek ab dono wala ñu fayee ko bor ya loolu nag mooy bu fekkee ba muy maye mbaa ba muy saraxe mbaa ba muy waqafle daa fekk mu toll ci wér ñu sàggan nag yéex koo jël si ba gàllankoor am ni ki faatu mbaa sisir nde bu fekkoon daa dem ba toll ci tawat tawati faatu daldi am lum jëmale ci kenn ci wàllu waqaf mbaa maye mbaa saraxe dañ koy jàppe ne ab dénkaane su génne àdduna te ko def alalam ñetti xaaj loola mën a génn ci benn xaaj ba ñu génne ko ca ndegam jëmale ko woon ci ku ko war a doon ndax ku war a doon moom du sañ wax ne su ma fi bàyyi ko nañ ma ko joxal nangam ndax dañuy jàpp ne yoon wax na wàllam ca dono ba ba àggal waaye ndegam nag bim tawatee la wax loolu tawat ji ca la wéy ba faatu waaye kam ko jëmale woon moom bokkul ci ñuy doon te it ku def àllam ñetti xaaj loolu xaj na ca benn xaaj ba daañu ko génne kon jox kooka mbaa ñooña mu doon ab dénkaane bu doon nag loo xam ne jëmul ci ñenn ñu ràññiku ni ki jàkka jum defar ba mu àgg rek bëgg ñëpp di ca jaamu si yàlla wala fu mu defar ba mu jekk bëgg ñu néew doole di fa fatu moom bu defaree ba àggal daal di bàyyi noonu ubbi rek bàyyi mel na ne kon jéppale na ko bu dee jàkka jaa ñuy julli si dal tàmbalee julli si bu dee barabu ñu néew doole ñu néew doole tàmbalee ñëw ak a dem bu fekkee nag ba mu tolloo ci tawat la waqafle mbaamu maye mbaamu saraxe waaye tawat ji da caa far wér su wéree rek loolee mu defoon day daal di mën a wii ka ko war a jël si na ko jël si loola amatul gàllankoor buñ ko doon sisir it te ñi nga xam ne ñoo war a fayu nga xam ne ñoo moom la fa nekk nanga nañoo bàyyi ñu wéyal la mu waxoon it ba tey loola ñu bàyyi mu wéy bu ñu nee nag lu ñu waqafle mbaa lu ñu maye mbaa lu ñu saraxe faaw day aajowoo ka ko war a jël jël ko ka ko war a jël day war a nekk mu kàllaf moo xam ne mën naa wéy ak boppam ci yor alalam te du ko yàq nga xam ne kon gone génn na yàqkatu alal boo xam ne yoon du ko bàyyi ak alalam ba tey génn na wal xabdu ngëb ga lil mahjoori ñeel ka ñu yiir fil mashhoori ci lañu siiwe ilal wasi jëm na ci ka ñu dénk bu fekkee ne kañ moomale loola daa mënta waaxu fabal ko boppam ndax daa nekk gone mbaa muy ab dof wala muy yàqkatu alal kon ka nga xam ne moom lañ ko dénk mu yore ay mbiram moo koy jëlal loolee nga xam ne ci moom la jëm si woon waaye moom ci boppam bu mu jëlal boppam waaye dana leeral ci kanam ne gone googu mbaa googu mënta yore alali boppam wartoona jekki-jekki waaxu jëlal boppam waaye nag su waaxoo jëlal boppam itam te téyeku bu wér ñu jàpp ne moom loola sotti na wér na moom na ko wayuk tafaa def na doyloo bi sixatil ishaadi ci wérug sereloo ga in awasa ndeem tëna alxawsu làq ga li xudrin ngir ngànt baa di lu di aji feeñ su fekkee ne lañ ko jox muy suuf mbaa lu ni mel dafa neexuta àgg boor ko ne lii lañ ko jox te fab na ko mel ne aw ay ab xeex daa am ci diggante fa ñu nekk ak fa suuf sa nekk mu ne kon bu ñu wutee ay seere kiy joxe suuf si wax ne jox naa ko kii kooka itam wax ne nangu na ko te fekk mu sañ a nangu rek ñàkk ñàkk wër suuf sa ndax ngànt du ca wàññi dara du tee nag gannaaw bu ngànt la dañee ni ki aywa dañ na kañ jox suuf sa nañ daal di dem mu wër ko ba mu wër ne léegi féete woon na ko bu wër waaye buñ ko defut ba ka joxe woon suuf sa faatu rek lam defoon daal di yàqu ni mu ko andee ci saraa bi nag daa wax rek bañ laajee ibnu rusdu ku saraxoon doomam joo xam ne mag la suuf waaye baay bi sàkk nañ seere seere seere itam ne doom ji nangu na seere yi bu gën ànd ak ñoom nag ñu dem ba wër suuf sa naka ñu tàmbalee wër rek ba gis lenn la jotuñoo àggal wër lépp far aw ay daldi am woo xam ne tee na ñu mën a àggale wër ba loolu lay wax ne kon lu yàgg-yàgg du yàq la ñu defoon su bàyyi ba faatu woon it du tee doom ja moom loolee te lépp lay moom déem rek ci lañ àndoon ba war ko bañ seere ko waaye daa mel ne mu doonoon loo xam ne jotuñu caa wër dara dara dañ ko tudd rek sàkkal koy seere tey la tey ñu mën caa dem mooy rek ngant ni ki ay woowu dafa mel ne ñu ñàkk caa wër dara du tee rek lañ def baax na nañ farlu rek ci bu ngant la dañee te fekk ka joxe woon ma ngay dund ñu gaaw dem ànd ak seere yi bañ wër ko ba lépp daj waaw bu fekkee dem ñu fa woon ñu dem fa ba xam fa mu dale fa mu yem lépp leer moom lay wax naa fa inzalal maaniu wa amkana al wusulu ilayha walam yaxruj li xawsi ma baqiya min alsadaqa xata maata al mutasaddiqu batala xukmul baaqi faqat wa rajaxa miraasan kon bu ngànt la dañee ñu mën a waaxu ba àgg fa àggale wër bañ doon wër te defuñu ko ba far ka joxe woon loola faatu lañ jotoon wër ba jàpp ne kiñ ko may mbaa kiñ ko sarax jël na ko rek mooy sotti waaye la nga xam jotuñu ko woon a wër ba takk ko ne ca la bokk moom dañ koy boole ca dono ba wayan fudu dana wéy at tax biisu xubus lega fii jamihima ci mboolem la nga xam ne mu xabbisun aj xubusle xadd xaddama jiital na keneen li xabdihi ñeel ak ngëbam la nga bëgg a waqafle mbaa nga ne xubus la ci wax baax na ka nga koy jëmale ca moom nag teewu fa nga daldi seet seere yoo xam ne doyloo nga leen nga ne leen yéen laa koy seereloo te yéen a koy fab téyal ko lii féetale naa ko ko ñu ne kon bu dee xubusle moom dal nay doy doonte sax kooko day mag te téewul ci jataay ba waaye mu nga ci dëkk ba itam du tee rek jaamur yooyu nga xam ne ñoo ko seere te maandu te fabal ko ko dal nay doy waaye loolu nag bu dee ci xubusle lay doy bu fekkoon ci maye mbaa saraxe la moom ka fa nekkut keneen mën na koo wuutu fabal ko waaye bu fa nekkee moom nee nañu ndegam may la mbaa saraxe faaw moom ci boppam mooy jëlal boppam moo tax daa bëgg wax ni yaani ànd na man xabbasa milkan min amlaakihi xala ahad wa qaddama man yaxuusuhu la fa xaasahu bilmuaayana fa in alxubusa saxiix walaw kaana almuxabbasu xalayhi kabiran xaadiran bi xilaafihi fi lxibati walsadaqa fa yasixu altaqdiimu fi xaqi lxaaibi faqat wal axu mbokk ma xawsuhu ak làqam wajaba war na li saxiri ñeel gone maxastiraakin ànd ak bokkaale wa bi taqdimin ak ci ak jiital min abin ku tukkee ci baay baay bi su mayee doom ja mag nga xam ne mën naa jëlal boppam boole ko doom ja ndaw am lu mu leen boole may leen ko mu ne kon doom ju mag ja mën naa fab fabaale rakkam joojee doonte sax bàyyi ba joxu ko ca ndigalit du ca dara lee mu ne wa fi taqdimin mi napp mooy bàyyi ba ne ko yow mi mag fabaaleel sa rakk ji ba mu wóor bu waxutoon loolu itam waaye mag ma moom am na xelum lii ñu mu bokkaal sama rakk ji fab naa fabaale ko ndax moom day gone dal nay doy ba tey sax bu fekkoon ne ab jaambur moo dikk ànd ak doom ju mag ja dal di fabaale gone ga itam bu baax moo xam jàmbur ba am na ca ndigal ca baay ba wala amu ca ndigal du ko tee baax wal abu baay nag laa yàq bidu du ngëb li saxir yi ñeel gone ga ma kabir yi ànd ak magam ma wal xubus xubusle ga irsun ak doon lay doon in wàqaxandeem xew na masala mi mu wax léegi la ne bu fekkoon ne baay ba dane yow sama doom ji mag sa wàll bopp rek ngay wax ne fab naa ko waaye sa rakk ji moom man man mi baayam di seen baay yéen ñaan ñëpp maa koy téyeel wàllam su waxoon loolu moom day yàqu su baay ba bëggee fabal doom cay gone wàllam rek loola daal di yàqu lu may nag defoon nañ ko bañ ne wérut gannaaw ba ñu gaaw dabaatal ko ba teg ko ci aw yoon moom lay wax naa illa isa ma am kana ndare ndeem jàppandi na at talaaf yi dabaatal ga wa suxiha te wéraleef alxawsu làq ga bi wàcc ci anam kaafin guddi aju doy suñu nee bàyyi su boolee doom ju mag mën a wéeg boppam ak doom ju ndaw xobus li leen na doom ju mag ja fab te fabal rakk ja waaye su fekkee ne bàyyi ba moo ne sa rakk ji moom maa koy fabaaleel ñu ne lépp day yàqu mu ne nag lu may laata gàllankoor di am mooy laata bàyyi bay faatu mbaa ñu ko sisir mbaa dara taxaw nañ temm ci def lay tax loolee baax te loolu mooy doom ju mag ja fabaale rakk ja wala ab jaambur ñëw fabal gone ga te bàyyi ba bañ a féetewoo ni maay fabal ku ndaw ki su fekkee cosaan defuñu ko woon waaye gannaaw ba gaaw nañ dabaatal ko def ko laata gàllankoor di am lañ defoon baax na wa in yuqaddim dem dafa jiital xayrahu kudul moom jaasa mu dagan wax nañu ko léegi mooy su fekkoon ne baay bi lam may doom ju mag ak doom ju ndaw néewul doom ju mag ja fa baaleel sa rakk ji dafa seet keneen koo xam ne doyloo na ko ne ko yow nag lii ma jox sama doom ju ndaw ji yow yaa koy fabal kee di mag moom na fabal boppam waaye yow nag fabalal kee di ku ndaw ki loola baax na wax nañ ko léegi wa xukkumu tax biichin atteb xobusle xufiye xañ toof na ko fii gis in ci ab xaaj mushaahin bu di buñ siiwal dañ koy firee mushaahin bu di buñ siiwal rek waaye mooy loo xam ne kenn séddoowu ko maanaam ñaara ko bokk mbaalu ko pute séddoowuñ ko soo amee cër ci loo xam ne kenn séddoowu ko la ne ñàkk a séddoo du tee sañ ngaa wax ne la cay saawal man def naa ko ci yoonu yàlla su ko defee bu ñu seetee la nga xam ne moo cay saawal mu daal di féetewoo ci wàllu yàlla bu dee lu ñu mën a séddale ñu daal di koy séddale la cay saawal jëm ca wàllu yàlla ga bu dee loo xam ne mu ne su ko séddale ñu jaay ko la nga xamee ne nag mooy. sa wàll ca njëgg da nga def ko ci yoonu yàlla ñu seet fuñ koy mën a dugal fu amal njariñ ñam jëm ca ñoom ñu jëmale ko ca nee nañu nag suuf bu dee waqaflee bu dee saraxee bu dee mayee da ca am xaaj rek bumu ne moom la waqafle mbaa xubusle mbaa mayee maanaam mu ne ku def kër gi ñeenti xaaj benn kaar bi moom laa waqafle mbaa moom laa maye mbaa moom laa saraxe teew na mu dëkk ca ak kookee nga xam ne moom la jëmale lam ca joxe kooku de bu fekkee doom la waaye magum jëmm la mu mën a weeg mbiri boppam mbaa mu di jàmbur kon loola du ci yàq dara waaye su doone doomam joo xam ne mënta weeg boppam mbaa gone la moom lay baax rek mooy ñu teel koo dabaatal teg ko ci yoon wa balaa gàllankoor am waaye bu ñu ca yéexee wax ba gàllankoor am rek lépp yàqu wamaa loo xam ne xaasahoo làq na ko asaxiiru gone li nafsi yi ñeel boppam aw baalixun wala mu kàllaf mbax jóorun ku di kuñ yiir naafidun aji wéy la lañu waqafle mbaa nga ne xubusle ka koy war a jël ba yoon jàpp ne jël am na daa war a nekk magum jëm moo xam ne mën naa yore mbiri boppam ci wàllu alal ñu waxoon ne foofa da ngay génne gone ak koo xam ne mag la waaye mënta yore alalam bu ko yoree yàq ko loolu lay wax fii ne gone gañ ne woon mënta jël boppam wala mag mañ ne woon mënta jël boppam du tee koo ci xam ne farlu nga ba jël bañ gis nga téye rek waroo koonu def sax ci cosaan waaye nagam def nga ko dañ ko ciy bàyyi jàpp ne jël ga nga jël loola wér na te moom nga ko mu mel ne kon ba mu ca tolloo di wax lu mel noonu mënoon naa wax ne waaye nag gone wala mag moo xam ne mënta wéeg boppam koo ci xam ne farlu na ba fabal boppam rek ñu jàpp ne fab ga wér na jaatuuf doon sax mu jekki-jekki fabal boppam waaye ndegam def na ko rek dañ ko cay bàyyi jàpp ne wér na wala yasbutu du sax xukkumul xob si atteb xobusle bin sihaabi nazaril muhabbisi ci dirikuk seetuk aju xubusle ja seet googu mooy toppatoo di nemmi ko ko yore li mawti ba ca faatu ga in sihaab diriku mooy sax di wéy rek koo xam ne daa fab kër mbaa ay garab lu am njariñ génne ko ci moomeelam yóbbu ci moomeelu yàlla na ko génne ci loxoom boole ca waaye bu nee nag maa koy téye di ko doxal lu ci génn ci njariñ maa koy fabal saa bopp jox ña ko yelloo su saxee ca noona ba faatu dañuy jàpp ne loola yàqu na ndax xubusle baa nga ne waqafle balaa baax kooko da koy génne ci ay loxoom balaa faatoo dikk wala sisir wala dox gu sar di wéy wéraatu ca kon nag bu ne lim joxe woon ci wàllu yàlla ci ay loxoom lay nekk mooy seet na mu jaadoo mu di ko nu doxale wéy ca noona génnewu ko ci ay loxoom nag ba farfaatu mbaa sisir am rek lam defoon dal nay yàqu bu nangu sax mu sart ne li may def ci yoonu yàlla kat man ci saa bopp maa koy toppatool saa bopp maa koy nemmikul saa bopp faw daañu ko forcer ci mu génne ko ci ay loxoom jëmale ci keneen mbaa ñeneen ñoo xam ne ñoo koy toppatoo ca na mu ware balaa gàllankoor am wa man sabaxa ku jiitu li sukk naa daari taxbiishin jëm ci dëkke kërug xubusle tab di yoxu kook dana xat am man walis ka nga xam ne doona xoo nekkoon ci ak yéesam fa xoo moom a xàqu moo gën a yeyoo kër goo xam ne ñañu ko féetale ci wàllu waqaf kenn ràññeelu leen tudduñu seeni tourné diw ak diw ak diw te nag ñoom ñëpp xajuñu ca kon ku ñëw ba xas dëkk rek jeex na gannaaw ba ku ñëw te amoo foo dugg it donte bokk nga ca doo wax ne ndegam amoo place ñi fi nekk nañ seet liñ ma war a jox weer wu ne ñu ma koy jox maanaam bëgg ni man am naa ci wàll te amu fu ma dugg kon nañ may jox saa wàll ñoom ñi fi nekk nañ ma koy jox xaalis mbaa lu ko nuru moom daal ndegam ñooña tudduñu seeni tur ràññeel leen te ñoom ñëpp xajuñu ca kër ga ku xas ñëw ba dëkk rek na toog bu génnee nag génnu toxu keneen ñëw duggaat it kooko daal di sañ a toog waaye nag ka ñëw amul fu mu dugg du wax ne na diw génn man ma dugg wala ndegam xajuma nañ seet lii saa wàll ñu ma koy jox weer wu ne nàngam su doon nag loo xam dafa tudd ay turi turi tur ne diw ak diw ci ràññeel moom lu loola xat-xat ñoo koy bokk buñ ca bokkee mën a dëkk baax na buñ ko mënut ñu di ko luye di séddoo lañ ci amee ci njariñ waa man koo xam ne yab yi dana jaay maa la nga xam ne xubbi sa xubbus leefoon na ko àll yi ci moom yu raddu def na ko xàcc mutalaxan ak lu mën di am wa asa atte ñaawal na ma xilmin ànd aku xam akuk tey buñ la xubbuslee maanaam buñ la féetalee loo xam ne dañ ne yàllaa tax dañ ne woon kenn du ko jaay lu may nag kooka daa waxoon ne yow mi ma ko féetale damay sart ne soo ci loroo man koo jaay bu fekkee ne kooka nag waxutoon ne sañ nga koo jaay yow miñ ko féetale lu yàgg-yàgg doo ko sañ a jaay mu ne nag boo ko jaayee te tey ko mu wóor la ne lii waqaf la waroo koon a jaay def nga bakkaar ndax xam nga lu aay ba noppi nga def ko te it moom nga xam ko tey ko jaay ko ak nga ñàkk koo xam ñooye moo faaw yoon dana tebbi jaay ga nga ko jaay jaay ga moom faaw ñu tebbi ko wal xul fu wóote ga fil mu butaax yi nekk na ci aju jënd ja xal yu ont yi ndax dana war a joxe alkira day firi pay gu luyaas waaye daa jublu rek njariñ dañoo wute ci loolee ñu defoon ci yoonu yàlla ñu ne woon bu ko kenn jaay su fekkoon ne kooka jaay na ko ba am ku ko jënd ba tàmbali koo jariñoo bu dee suuf jot na koo bay ay yooni yoon baa bu dee kër ba mu ko jëndee jot na koo luye ba fayu ca ay weeri weer payug luyaas ndax loolee mu jot a jariñu bindee xàcc njaay mi dana ko delloowaale am du ko delloowaale foofu am na wuute waaye nag wuute ba mooy bu fekk